صلاة لسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع العبس والسفر bayitu bis bi fukkeel bi numéro ak ñaar ñu ci ànd ak Serigne Fallou Garas Sylla bayitu bis bi ñëw ci ñaan gi nga xam ne sëriñ bi ñaan na ko ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba. sëñ bi dafa wax ne waccal ilaahi maskani tuuba abad mislasmiha bi jaahi xayri man abad sëriñ Fallu ana lu sëriñ Tuuba wax ci boobu bayit ki nga xamante ni moom képp moo yeyoo jaamu yow laa ñaan yow yow yàlla yow laa ñaan waccal ilaahi maskani nga def sama dëkk bi nga xam ne Touba moo tudd Touba mislasmiha lu mu turóon da moo nekk ca àjjana mbokk yi loolu bi ko sëñ Touba di ñaan booba Touba gi mbaarum ngeer la fi sëñ tubaa def ay ron ne fi sëñ tubaa ñaan ko ngir mu nuroog turandoom woowee léegi dem nañ ba jamono wax ne amul dëkk bu gën a rafet tuubaa ci ni ñu ko lotisee te yoo gën a yéem ci àdduna boo dikkee fekk ko ci tuubaa muy dëkk boo xam ne doo fi gis bistoron doo fi dajeeg négob cigarette doo fi dégg lu naqar yàlla dëkk bi dëkkub diine la di bopp xam-xam saa yoo fi déggee la gën a di meebul ba gën a rëy nga di ko seen jumaa la di néegub yàlla te ba mu koy ñaan ci dëkk bi booba dëkk bi mbaari ngeer moo fi nekk waaye amagut ay lotissement ay kër nekkagu fi dara nekkagu fi sëriñ bi ñaanoon ci dëkkam bi sun borom def ko mu nekk dëkk boo xamante ne bi lépp loo xam ne day suuxat dundub doomu aadama te yalla daganal ko am ci dekk bi bokki ñaan gi diko serigne bi ñaané ak bi ci nit ñi tambalé tek seeni dafa yagut ndax serigne bi contrat am digganteem ak yalla moy lu muy wax yalla day fekk yalla pare ci jox ko ko ba wala mu jox ko ko ba noppi sëriñ bi euh, rafetale ko ak ñaan wutalé ko awlay waye lepp lu wax yalla def na ko ba noppi moo tax sëñ ñaan tayit lolu kuko wara dimbalé ci ñaan gi ñaan gi mooy loo rafet Touba la war a jëm si waccal ilaahi maskani Touba abat misla simiha la sëñ Touba wax même roog turandoo moo nekk ci àjjana kon boy jema defar keur gu bax ci Touba ni tax keur yom gëna yom Touba ci am ko ci benen dekk moy ñaanu sëñ Touba gogu moy dimbalé kep ko xamné ne yaa ngi defar sa keur Touba yaa ngi koy jema rafetal sun borom dalay jox lo xamné dang koy defara ba nopi nga ni li capital bi denc mako won lan mo waral lolu ñaanu sëñ Touba gogu la yalla gàttandu kon beytu bis mi ñu ngi ko jëme tay ci sofu si dëkk bi muy waccal ilahi maskani Touba abad misla smiha bi jahi khairi man abad jërëjëf Serigne Fallou Galassila bayen bayit ëllëg ak jam bu sobe yalla صلاة النسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع لبس والسفر